jërë ngeen jëf barça wala barsàq njuuma la dellu si na journal Sud Quotidien moo ko bindee noonu ci xëtamu njëkk lu jege ñetti téeméeri doomi aadama yi fab woon ware woon Kafountine mbëkk gaali loo cey doon dem Espagne ba far réer ci géej gi yéenekaay bi nee nañu moo dellu si coowal mbëkk mi ak jaaxleeg naqar yu muy jur libération xëy départ teere ji ca Kafountine gi gaa ñi di départ lieu de départ et de drame noonee li ko yéenekaay bi tudde ba dañu xamal ne ñi jëloon gaal gi mbëkk doon dem Espagne ca ñoom am na ci ay doomi Sénégal am na ci ay doomi Guinée ay doomi Guinée Bissau ay Gambien ak ay doomi signalé woon Malick Diouf di benn waay boo xam ne doomam ju ci gaal gi la bokk mi ngi wax ci libération li ko doomam dénk woon laata muy jël gaal gi àdduna du yàgg mukk ba suñuy doom ne dañuy jël gaal gi ñu dem naan ñi ngi leen di boole ay kàddu la yu soxna suñu naan Mariama Mbay yëkkati ci xët mu njëkku libération enquête dina kay xëy di fub enquête ci li waral nit ñi di sànjaafu gaali loo coy bay loru ci géej gi mi ngi ñuy wax it ne ministère affaires étrangères bu Sénégal wax ne dafa am lu toll ci ñetti téeméeri doomi Sénégal yu duggoon ci gaali loo coy doon dem Espagne ba far réer ci géej gi gis nañu ne du dëgg lii dëgg mooy ci diggante juin jàpp 9 yëg nañu ñaari téeméeri doomi Sénégal ak juróom-benn fukk yu newoon ci guuta ci waaxi Maroc yi te nee nañu kaa boobee bu Sénégal ba ca Dakhla lëkkaloo nañu ak kilifa yu Maroc yi ba sauver leen 17 nu ñu leen delloosee ci réew mi kii di Bougane Gueye ci journal La Tribune muy wax na li jaralaaj mooy lan moo tax suñu frères yi ak suñu sœurs di daw li am ci réew mi ba mu jaral a tukki ab tukki ku ko wax xel dem ci aéroport lu national Blaise Diagne soleil national nee nañu gonga gis nañu ak yokk gu 23 pour cent gu am ci limub tukkikat yi gis nañu it yokkuk 6 pour cent ci fret bi compagnie nationale bii di Air Sénégal soleil national nee nañu compagnie étrangère yi ñu ko dara conseil supérieur de la magistrature bi woon démb l'observateur xëy na dañu wax dogal yi ñu fa jël bil yéenekaay bi ca dogal yi bokk na ci ne léegi Mamadou Cissé Fall mooy président tribunal bu Ndakaaru kan ne woon doyen des juges bu tribunal Pikine Guédiawaye changé nañu ko Les Échos gis ne am na ñu ñu yokkal seen ndombay tànk waaye am na ñu ñu wàññil seen ndombay tànk promotion ak promotion sanction moo am Mamadou Cissé Fall doole nañu ko Yaxam Keita ñu yóbbu ko ca kees Amari Faye ñu delloosi ko Ami Ndaw teere ji Tëngéej Biram Souleye Diop far na teere ji kaso sursoi nañu ma rëbës ginnaaw ay retour de parquet yu bari moom numéro 2 bu parti Pastef bi doon nit président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi démb la ko doyen des juges Maham Diallo mandat dépôt ak tuumay xutti war njiitu réew mu di offense au a saxal jàmmi réew mi moo tax moom Biram Souleye Diop naataangoom yi mu bokkal làngu député yeewi askan wi ñoo ngi ñaawlu lu ñu ko tëj boole kook di ko tuumal Macky tey sàkko ñu génne ko nu mu gën a gaawee journal Le bind ne doyen des juges Maham Diallo daaneel na Birame Souleye Diop Walf Quotidien xëy ak ñun ci cadre yu parti Pastef yu bari yi ci kaso bi parti bii di Pastef bu doon jëmmi doomu aadama la Walf Quotidien nee nañu jamono ji amatul bopp ndax Birame Souleye Diop ma ma nga ca kaso ba Fadilou Keita ak kaso bariwul ñu bari danañu jàppati seen gémmiñ bu ñu xoolee li ci xët mu njëkk l'Observateur fraude organisée bu mu ne moo am ci bag bi ñi doon doxal yëf yi mu di cerveau ba journal bi nañu lañ doon laaj moo di fukki junni jàpp ñeen fukki junni journal bi nañu bu ñu xoolee yëf yi càmbar ko daanaka wuute wuut ak li amoon te ñi ko doon def ñu ne mooy tim bu pekkees ci bag bi woon 2022